donc du coup comme je disais gars ma nuit ñep de di leen donc c'est un débat ouvert euh, dañ fi pour essayer répondre question nit yi pour parler de sujets d'actualité yi nga xam autour de Bitcoin comme par exemple c'est le 12e euh, non le 13e anniversaire du Bitcoin dans le sens où c'est un 31 octobre notamment en 2008 c'est le Satoshi Nakamoto génnee le white paper donc le document ou quelques pages bo xamni ni donne la doon expliquer concept bitcoin donc document bobu noonu mu ko partager won si mailing sous, cryptographeur à l'époque donc les meilleurs cryptographes au monde, foofu lañ doon dajé di waxtaan si concept technique mom jour bobu non donc le 31 octobre 2008 c'est la yow mu génnee papier bi mu expliquer concept bitcoin non à partir de instant nous faut foofu la di débattre ak nit yi répondre aux questions yi bon à mon ñu ci doon critiquer amono amono voir ñu doon wax c'est impossible Liam, am amono na ñu doon le projet bi bref trois mois après en janvier 2009 c'est le génnee premier code source ou bitcoin bon mu def ko open source donc mu sur GitHub après gars yi là lañ commencé nga xamone xam nañ concept on va dire euh, philosophique bi si lañ commencé maintenant di dem gëstu ci code bi di essayer def transaction tester etc. donc c'est mon 13 13e anniversaire au Bitcoin en tout cas sur le plan philosophique gis nañ tamit temps yi nii Facebook ne dafay changer tour tudd boppam Meta euh, man sant yàlla ba awma compte Facebook mais j'imagine que ñi am compte Facebook xam nañ déjà Facebook lu muy def ak seeni données Mais imaginons un monde Meta, ça vient de metaverse donc metaverse un monde parallèle un monde virtuel Facebook lol, la bëgg d'ougal niti. bien yi monde virtuel bo xam da bien am benn doublon doublon bo xam ni à partir de là mon dina mën étudier tout tes comportements toutes tes transactions ba pare créer ici bien cryptomonnaie boo xam nit yi moom la ñuy utiliser pour jënd ak jaay ay affaires pour yónnente tamit léegi loolu tamit bëggoon naa xam nit yi la lañ si xalaat danger yi et tout aussi gis nañ ça fait plein de bruit semaine dernière il y a deux semaines même même semaine dernière, mais dans le temps il passé Nigeria a lancé e-Naira donc c'est yi bëgg naa tamit nit wax ma si xalaat même su fekkee jot nañ si plusieurs fois en sachant que nous ngi jëm si monde où xam ni état dañ nar a am propre crypto-monnaie bon imaginons état bu am crypto-monnaie buy exiger on va dire population bi ñu télécharger ben portefeuille virtuel seeni téléphone pour am crypto monnaie yoy non imaginons état bi na la légui suba so bëggé dem bureau des passeports wala nga bëggé dem impôt wala toute démarche administrative crypto monnaie bobu non nga wara fayé fayee léegi ñu dem ben monde bo xam ñëpp portefeuille virtuel bobu lañu utiliser est-ce que dinañ amati ay nit comme ay Guy Marius Sagna wala ay ñeneen ñoo xam ne dañuy révolté wu contre état yi là aussi c'est une autre question gouvernement yi tamit gis nañ ni de plus en plus ñu ngi jéem a euh, réglementer monde crypto-monnaie yi réglementer secteur bi nii voilà donc li moo tax ñu ne débat ouvert Il y a beaucoup de questions à se poser nañ jéem a essayer indi ay donc du coup soo leen amee ay questions wala loo leen si bëgg a indi parce que benn xel doyul da ngeen di yëkkati juste seen loxo ñu invité leen on stage donc on va commencer par Toutmozis ñu ngi lay nuyu. waaw Ndoru maa ngi lay fay rajo moom naa dugg moom waaw yaa ngi métaverse bi rek ngi ay nit. de façon positive am de façon négative mais ñenn am na ne se sentent pas bien physiquement et ils préfèrent vivre dans la virtualité am ñeneen ñoo xam ne mooy comme li nga wax rek affaire transfert de données yi et que transaction bi gisoon naa sa benn coin bu tudd metaverse ETP e ou EDP su ma juumul gars yi noo koy jaay actuellement te maa ngi gis moo ngi yokk 35 pour cent d'augmentation léegi Facebook comme li nga wax man Facebook moom gëj naa fa posté am naa ko parce que depuis 2000 deux mille onze ou deux mille dix mais gëj naa fa posté nag dinaa fa dugg nii xool lan moo xew si environnement mais ay posté ak genre yooyu moom gëj naa ko def waaw comme li nga wax rek marque moom du du gaañ boo xam ne dafa sérieux et que il travaille pour les gouvernements daal yaa ngi wax tamit si affaire bitcoin bi anniversaire bi xam na institution financières yi au début dañ doon wax naan affaire du dem fenn man gisoon naa sax benn euh, directeur u JP Morgan Bank mooy ñi yore Chase Bank États-Unis dañ doon wax naan bitcoin amul futur du dara ku si dugal sa xaalis da ngay perte mais daaw fin d'année wu daaw rek maa ngi gis ñu naan Chase Bank dinañ def benn investissement boo xam ne dañuy proposer benn genre monnaie numérique pour seen kii client yi fa nekk ma ne ah bon kon ngeen <laughs> yéen ngi soog a gëm crypto monnaie <laughs> parce que xam ne ni mu neex mu naqar yi lu ñuy wax mooy euh, paper money mm. genre euh, billet day disparaître lépp numérique lay doon waaw man sama question mooy bu ñu yeggee si bitcoin mun na nekk alternative pour nit yoo xam ne dañoo bëgg denc seen xaalis te bëggunu gouvernement bi di ko contrôler. Hmm. wala mu koy freeze ça veut dire. gelé ñëw bloqué sa compte bancaire bu fekkee genre opposant la comme li nga wax rek ñooñu noonu nara a parce que bu fekkee rek si monnaie numérique boo xam ni centralisé na nekk boo xam ne gouvernement moo ko contrôlé ñooñu mën na leen mettre à genoux. pour duñu mën di continuer seen xeex nu mën di exprimer wu boobaa gouvernement yi dañuy gën a am doole te li di wax ay démocratie ay liberté yooyu yëpp dafa nar a disparaître dafay mel dañuy delluwaat dans le passé dans l'antiquité nga xam ni gouvernement bi lu ko neex la doon def léegi ak yi ñu xeexoon yooyu yëpp sunu maam yi lu nu xeexoon da nga koy pertaat mooy liberté bi parce que ñoo gis loo xam ni yaa ko liggéey nangu na gouvernement mu ne danga war a fay par exemple taxe pour dëkk si biir réew bi ok loolu comprendre naa parce que da nga war a contribuer si réew mi pour mu avancer bépp gouvernement noonu la war a demee mais quant à da ngay fay taxe mais dañu bëgg a xam yow looy def ak sa xaalis non loolu man ànduma si gouvernement dafa war a jël war a jël te bàyyi nit ñi daf def seen xaalis luñ si war a def mais contrôle totale bi moom du du dignité humain quoi mooy nit dafa dafa am lu mu soxla mooy vie privée te da nga ko seetlu jamono ji nit yi amatul vie privée même si réseaux sociaux yi sax ay dan ma xàkke ay danu pirater sama compte jël say photo exposé yooyu yëpp parce que gars yi comprendre monde bu dugg da nga ko maîtriser wul Euh, contribuer contribuer contribuer quoi xamna dina bàyyi ñeneen wax Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tournosis. am solo. Quand on parle de metaverse, il faut savoir que les ben terme le bout dans le monde du Bitcoin, on ñu est utilisé depuis vraiment des années. Hein. Je pense que c'est même avant la création Bitcoin. Parce qu'au au final, metaverse, nous n'y a pas de metaverse metaverse mooy lan mooy monde parallèle benn monde virtuel boo xam ni nit ki dafay am beneen identité boo xam ni dafay wan leneen tu vois parce que au final comme li nga wax déjà am na c'est un problème de physique am na c'est pas un problème de physique c'est juste dañoo timide donc dans la vraie vie duñ fa mën a def yenn yoo dans le monde virtuel dinañ ko fa mën a def te au final ñu ngi ko doon gis la plupart du temps si deep web donc so vous doon dem si yenn forum deep web bi fofu mom c'est des metaverse et ay metaverse mais aussi si jeux vidéo yi par exemple Minecraft bokk na si un des premiers wala des plus grands metaverse existé même peu importe jeu vidéo bi ngay jël par exemple imaginons Call of Duty pour ñi nga xamné ne dañuy jouer si jeux vidéo yi Call of Duty da ngay ñëw nga créer fa sa personnage la plupart du temps da ngay former sa équipe ngeen di def ay mission mais nit ni ñuy comporté au si Call of Duty du non, la ñuy comporté au si biti parce que foofu la wone une vraie nature parce que lu tax là-bas on ne les connaît pas vraiment da nga doon gis ay nit yoo xam ni man loolu j'en connaissais dañuy jouer pendant des années avec les mêmes personnes si benn jeu en ligne sans jamais ñu gis leen et que suñuy wootante dañuy wootante via seeni pseudo et que personnalité bi ñuy wone foofu noonu vraie personnalité donc gars ils sont en train de surfer si benn terme boo xam ni à la base c'était utilisé par les geeks wala par ñi nga au final, ils étaient vraiment dedans, quoi, sur le monde numérique. mais quand Facebook maintenant s'approprie ce terme-là, lu muy war mooy lenn pousser nit yi ba comme li ma wax si metaverse, d'habitude si nit yi foofu la ñuy wane seeni vraie personnalité donc Facebook nit que mën def post mais post boo ça n'a rien à voir avec sa vie mais imaginons a léegi ngeen dugg si genre système boobu nga xam ni gars yi sam tam dañ leen di yónnee ay euh, ay capteur c'est une gàlle maintenant dépassé nañ ay Alexa wala ay yeneen ay capteurs la ñuy indi tu vas te créer un monde virtuel dinañ mën a juger en fait dinañ mën a yow jël sa comportement en temps réel à chaque instant et en même temps aussi la manière dont tu t'exprimes c'est vraiment toi dinañ la mën a cibler parce qu'il il faut pas oublier que Facebook c'est gratuit mais ce n'est pas gratuit ku nekk mën na fa ubbi compte mais ku nekk ñu ngi jaay say données par rapport ak yow say comportement say liens ku nekk tamit ñu ngi jaay say données par rapport ak ñi bëgg a def ay publicité ci plateforme donc loolu laa bëggoon wax par rapport ak Facebook ak le terme metaverse Renseignez wu leen vraiment ce terme boobu noonu ngeen xool historique bi fu mu jógee sori na trop mais aussi lan lay signifier et ne vous laissez pas avoir Ce n'est pas parce que Facebook day nom que day de philosophie comme tout le monde sait, ko waxee marque du sérieux mais bon loolu moo nekkoon premier point bi li nga waxoon par rapport ak JP Morgan effectivement je vais Morgan si 2020 2021 Bien ils vont proposer maintenant à leurs clients fortunés la possibilité de jaar sur ñom pour ñu mëna jënd bitcoin ba que ñom ñu le leen ko lu tax ñu def comme ni nga waxé au début dañ doon xeex bitcoin mais plus ñu doon avancer plus sen clients yi am xaalis yi ñi nga xam ñom ñëmé wuñu garder sen ont sen bitcoin di leen laaj mais gars yi kañ ngeen di proposer bitcoin comme ça ñu mën si def suñu au même titre que immobilier ou l'investissement. investissement donc JP Morgan Morgan Stanley banque qui est a États-Unis nous soit garder les bitcoin pour ses clients soit investir ces entreprises liées à bitcoin parce que gis euh, l'un des plus grands sinon le plus grand fonds d'investissement au monde c'est BlackRock il gère des trilliards de dollars mais nous euh, avons investir dans les ci minage c'est des mineur pardon donc une société la bo ils font du minage madame ils sécurisent le réseau bitcoin ils se font rémunérer des bitcoins à chaque fois ñu valider de bloc or minage moy sécurité au réseau bi crédibilité au réseau qu'est-ce qui va se passer dans quelques années ce que que benn BlackRock devrait détenir plus de 50% ou ben société de minage ils peuvent être capables de filtrer des transactions mais gëguñ dans tous les cas l'idée derrière les plus ma veux wax que plus nous avançons, plus on voit que nous ñu doon xeex bitcoin dañoo xeex ba sonn à chaque fois bu ñu sànnee de bitcoin day Bitcoin, renforcer donc ce qu'ils sont en train de faire c'est changer de stratégie dugg ci de l'écosystème bitcoin di jënd entreprise yi nga xam ne tourner autour de bitcoin et pour terminer par rapport à cette intervention Moses gouvernement et la sauvegarde de la vie privée effectivement euh, je voudrais dire wax ni <laughs> amon kenn dafa bindoon ci Twitter mu ne en fait ki nga xam ne nëbul dara warul ragal gouvernement bi ñëw fouiller sa vie gars yi ne ko ah amul problème du coup yow jox ñu sa mot de passe email jox ñu sa code téléphone parce que ñun gëm nañ yow ku baax nga tu n'as rien à cacher non mais defu ko parce que mooy li nga wax rek il s'agit de dignité humaine nit yi amuñu lu ñuy nëbb ñu ci bëri amuñu lu ñuy nëbb c'est juste bëgguñu ku leen di xool ku leen di surveiller chaque fois ñoom ci lan lañ nekk te bon CBDC ça met en danger beaucoup ce concept-là de sauvegarde de la vie privée et encore une fois comme tu l'as souligné Bitcoin ça va être une alternative mais pour le moment ko c'est peut-être parce que expérimenter guñu CBDC mais plus nous avancer plus ça va être évident pour les gens quoi merci pour cette intervention mais aussi je rappelle à ñepp ñi nek ci c'est vraiment ouvert à tout le monde hein. Vous le sonné à mes questions, vous levez la main, on vous invite sur scène. Quoi. Salam alaikum, Pape. Euh, salam alaikum, Gaï. Alaikum salam. Euh, ziar naa la bu baax. ñu ngi lay delloo ziar. toog na suuf si intervention am na solo si mu wax sécurité et tout ça bi confidentialité bi. mais man dafa am une question bu ma doon am rapport avec bitcoin. <coughs> parce que fan il y a quelques deux semaines je pense gis nañ que ni la de dañoo accepter accepté def ay ETF sur le bitcoin te à la base bon su fekkente ne bon jëm na def ay recherche si côté bobu mais gis ma ben yon ko siy wax parce que euh, su on comprend un peu la philosophie du bitcoin wala son histoire c'était à la base de faire un instrument pour xam dafa bëggoon détacher aussi tout ce qui est institution au gouvernement le pourquoi parce que dañu jàpp ni moy li monde se wax moi si dignité humaine c'est confidentialité ak bañ a exposé voilà am benn contrôle boo xamante ni ça vient d'en haut <coughs> excusez-moi donc tey jii nii bu ñu defee euh, sur le bitcoin nga xamante ne c'est négociable léegi dans les bourses et tout ça mais je me dis est-ce que un peu ça trahit pas la philosophie du bitcoin bu nga xamante ni beaucoup bëggul woon musu am benn ben organisme de régulation boo xamante ni moo fay parce que ñoom à la base la pourquoi ñu won les crypto c'était parce que c'était pas contrôlé amul woon régulation mais tey nii bu ñëw def ay ETF nga xamante c'est des contrats à terme <coughs> tout en sachant aussi que y' a cet aspect aussi que le bitcoin est capé à 21 millions sur le long terme Les ETF voilà contrat à terme yi da ngay def say contrat tant que amul foofu c'est pas capé donc mo bëggoon xam ndax primo ndax un loolu non nekul ben genre doit donner au Bitcoin. le premier deuxième bi euh, comment ça va se passer avec les ETF à cabo Bitcoin bi nga xam ne c'est à vingt et un mille foofu que su fekkee mën nga si grand quoi. ah Pape doigt d'honneur di gars le est lâché <laughs> euh, mais li nga wax dëgg les xaw li déjà c'est philosophie bi ma commencé mhm. expliquer à peu près rapidement philosophie donc bitcoin fu mu sori na lool xam nga euh, instant bi ni on parle de Satoshi Nakamoto kenn xamul kan mooy Satoshi Nakamoto xamuñu ndax ben nit la wala plusieurs personnes wala gouvernement la wala en tout cas xamuñu kan mooy Satoshi Nakamoto mais li gissone moy dans les années 80 90 et vingt livre bi ko gëna on va dire livre bi ko gëna démontrer moy Orwell 1984 en fait dañoo wane benn instant que gouvernement yi dañoo jékki-jékki ñu ne ñoom dañoo soxla contrôler nit yi parce que avant normalement démocratie entre guillemets même si fekkee démocratie musul exister mais démocratie entre guillemets moo nekkoon lan le pouvoir au peuple par le peuple donc peuple bi moom moo waroon tànn lan la gouvernement bi def gouvernement yi ñëw ne peuple bi xamul li mu bëgg ñun ñii di diriger ñun ñoo xam li peuple bi bëgg <laughs> donc peu importe leur raison léegi nous ne qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de faire de telle sorte que le peuple bi bouger pour que le peuple bi bouger il faut nga le peuple bi fan nga koy pour nga le peuple bi fan nga koy il faut nga xam kan mooy peuple bi pour nga xam kan peuple bi il faut nga recueillir ay données ci peuple bi et lolo dafa tombé tamit ak événement ou internet xam événement ou ordinateur yeeg donc ils ont vu là une occasion pour recueillir le maximum de données sur des gens à travers tout hein. maintenant nous avons un impôt maintenant c'est l'anglais ngay def internet l'anglais ngay seetaan et même avec la télévision c'est le plus nekk numérique dans vers les années 80, il y a un groupe de personnes donc gars yooyu noonu c'était des cryptographes ils ñu ne ñun li cryptographie c'est pour faire ay affaires su ma pap mu dugal ko ci benn algorithme de hachage daf may génneel ay série de chiffres et de lettres kenn du xam ni Pape laa bind ñu ne ñun nii on va mettre xam à la disposition du peuple ñun li ñuy jàng ñu def ci ay outils pour que nit yi mën a préserver seeni vie privée de telle sorte que benn Pape su demee internet di fa def liye liye là dina am ay moyens pour mën a protéger moom boppam pour mën a nëbb boppam et encore une fois c'est pas parce que Pape lu muy def baaxul de c'est juste parce que Pape dafa soxla benn vie privée, quoi. Donc, ñooñu on les appelait les cypherpunks donc si cypherpunks yi gëna célèbre am ngeen ci Julian Assange bi nga xamni ni gars dañ ko sonal dañ ko sonal lool am ngeen ci Adam Back ki nga xamni ne moom mooy à l'origine entre guillemets de proof of work bu Bitcoin am ngeen gars yi créé protocole comme IPGP wala yenen xam nga donc solution Wikileaks yu Julian Assange tamit gaa yooyu tamit ñoom ñoo créé ay solution yoo xam ni nit ki mën na ñëw yónnente ay communication de façon sécurisée ba nga xam ne état bi du mën a intercepter communication yooyu léegi on croit que gëm nañ ni ñooñu tamit ñoom ñoo nekk ci gannaaw bitcoin parce que dañoo jël outil yooyu mu tombé crise financière aussi 2007 2008 bi gars na ak outil yi nii tamit war nañoo mën a préserver dignité financière nit yi au lieu ñuy tout le temps dem ci banques yi banques yi di foo ak seeni xaalis banque yi di jékki-jékki tëj comme li xewoon euh, ak kii euh, en 2008 gars yi ñun on va mettre essayer de mettre en place benn système boo xam ni ce sera un système de paiement pire to pire sans intermédiaire et quand on dit peer to peer mooy amul benn entité centrale bu koy contrôler mooy li Pape doon souligner sànq système la boo xam ni moom mooy diriger boppam système la boo xam ni moom mooy contrôler boppam donc bitcoin l'ol la à la base une philosophie là pour permettre pour permettre à nit garder sen xaliss c'est fenn fo xamni kenn mënu contrôler kenn mënu len censurer kenn nous ñeu confisquer ko donc une philosophie maintenant quand on en vient à ETF donc ETF ben genre on va dire c'est une copie c'est c'est un peu une copie digitale de ben actif mëna nek aussi une copie digitale de ben indice banques yi dañ koy utiliser pour mun créer ay produits financiers comme ay options ay futurs ay swap mais aussi waaw ay contrats à terme hein. mais aussi juste euh, pour répliquer prix ou bitcoin par exemple quand on parle d'un ETF bitcoin donc banque bi mën na jaay juste ETF bitcoin bi ben client nga xamné ne client bi bitcoin ça yu que moom day jël si li mu yokk sans pour autant détenir bitcoin mais aussi day permettre nit yi ñu def ay options sur bitcoin option d'achat, option de vente. a un contrat futur sur Bitcoin donc contrat futur pour acheter pour vendre à yeneen ak te c'est en relation avec li le monde. wax ak Toutmoses que gars qui ont Bitcoin de l'extérieur ils n'ont pas pu l'abattre en 12 ans 13 ans ils ont commencé à changer de stratégie à l'intérieur parce que dès lors que tu mets en place ce système def, ce système de contrat à terme tu peux contrôler le prix du bitcoin parce que ben banque mën na ñëw mu générer ay contrat yu bari d'achat et option xam contrat yu bari d'achat sur le bitcoin légui mu def ko par exemple affaire bi dina nekk en application dans quatre cinq mois six mois acteurs du marché yi suñu gisee lolu né mais banque bien ni lutax mu bëgg jënd quantité bu énorme bi ni si bitcoin c'est parce que amna lu muy xaar xaarañu top ko donc gars yi suñ ko topé c'est soit ñom tamit dañuy jënd ay option soit ñu dem sur le marché réel ñu dem jënd ay vrai bitcoin te loolu mën na tax bitcoin yokk loolu on va dire day arranger investisseurs yi mais banque bi te ñoom loolu la ñuy wër su fekkee dañoo bëgg a bitcoin ils peuvent aussi mettre ay contrat de vente yu bëri de telle sorte que ku ko gis je te dis que bitcoin fu mu jëm baaxul donc man bàyyi ma lâché samay bitcoin donc, ça va pousser les gens maintenant, au lieu de nous réellement Bitcoin nous. bi, bien système bu nous permet de nous faire dans le monde sans nous contrôler contrôle dañuy dem xoli Bitcoin bi seulement fal la Donc, on va vers ben un monde de spéculation, mais vraiment à 90% quand il s'agit du prix du Bitcoin. Donc, ben affaire bo ce sera vraiment corrélé aux besoin unity, ce sera corrélé à événements comme par exemple à guerre fi wala ay euh, hacking sur ay site de qui site de site d'exchange ak ce sera vraiment corrélé ak banque yi instant yi lan la ñu xalaat ci prix du bitcoin donc lool moy danger bi bu grand pape donc ça n'a rien à voir avec la philosophie maintenant la moi si alternative instant béni c'est que la plupart des gens qui se connaissent vraiment sur bitcoin ñom duñu nekk di xol loolu donc peu importe prix bi perdre 90% de sa valeur wala dette ñom dinañ continuer di si jënd bitcoin parce que daf leen amal njëriñ maintenant spéculateurs yi nak ñom ils vont être touchés au portefeuille joubale dama waxoon ci benn ma quand il s'agit de trading do affaire amateur en fait trading da nga koy jàng da tok jël sa temps man duma trading mais nekkoon na si milieu la plupart des gens qui sont des particuliers ils ont en face d'eux un professionnel. nit yoo xam dañ ko jang, nit yoo dañ koy pratiquer tous les jours mais loolu sax grawul mais c'est nit yoo xam ils ont des outils yo xam particuliers amuñu ko gars ils font du data mining ils font du web scrapping gars yi am ay algorithmes gars yi am ay moyens statistiques yo xam particuliers particulier amuñu ko te temps yi rek def ben analyse à chaque fois investisseurs institutionnels ils sont en avance de un an par rapport aux particuliers Madame, maanaam soo leen prix prix bitcoin de 3000 dollars à 60 000 dollars en un an ça fait qu'un un an avant investisseurs institutionnels ils ont accumulé beaucoup beaucoup de bitcoin Mais affaire bi di 60 000 dollars, ont payé dollars prix de di C'est donc si loolu lañ jëm quoi grand père, xaw na répondre na sa question. si si si si Nourou leer na question bi leer parce que man sama question par bu may wax euh, philosophie bitcoin et tout ça ak ETF yi mooy li nga jot expliquer. mooy que ni après dafay nekk benn instrument boo xamante ni à forte explica euh, explication lay demee donc sànq ni nga koy mooy que ni institution financière yi tey bu fekkente ne dañoo bëgg rey bitcoin bi ñoo mun a def ay ETF euh, e yoo xamante subvente lay nekk donc ñoom bu ñu shooté une très grosse masse de BTC donc forcément da koy wàcce tu vois donc boobaa ñi nga xamante ni mooy ñi nga xam les petits investisseurs entre guillemets yi nga xam ñoom ñoo doon investir si Bitcoin dañu ne donc ce n'est plus intéressant parce que fii nii voilà am na benn benn benn kii boo xam dootu ko atteindre parce que problème bi ni investir ñep détenir ñu information yi quoi tu vois te en plus le plus souvent ñu ñep c'est c'est un truc bo xamante bu bouche à oreille la dox na dox doxul doxul gaay yi génne un peu dans la affaire bi di demee moo tax ma doon wax <coughs> bu may nekk doigt doigt droit bu may wax ndax est-ce que kii bi nekkul benn doigt droit ci bitcoin bi moy que ni légui vu que mënatul nek benn autorité de régulation bo xamante c'est entre guillemets moi n'ai que beau officiel mais d'une manière je am même si si si fonctionnements à faire. parce que nous, à leur niveau nous avons décidé ni que voilà bitcoin bi day voilà wala day par rapport à ces euh, contrat yi nga xam et tout ça c'est sens pour la quoi mais avec ces explications yi là, franchement oui c'est ça Nous avons essayé de essayer le contrôler euh, prix du bitcoin mais aussi essayer de créer un produit. donc am am na ba mais di nga de plus en plus maintenant surtout aux États-Unis les applications mobiles ils vont proposer le bitcoin pour investir le bitcoin Nous avons ni application de tudd Robinhood Robinhood mën nga fa dem nga ni da ngay action mais li ngay jënd non, du action c'est un élément synthétique en fait c'est ça réplique le coût d'une action donc l'ETF ETF moins tu vois donc gars il ko permettre parce que tu l'as précisé Bitcoin le maximum c'est 21 millions mais on créer ETF ça veut dire que tu peux créer des bitcoins synthétiques à l'infini d'accord au final ils profiter si aussi subir perte mais voilà quoi en tout cas moi je considère pas c'est une bonne nouvelle parce que parfois man damay jaxlé nit les nga xamni défendent le bitcoin bec et ongle ces gens genre nouvelle yi wala ñu une ni ben banque fay offrir maintenant euh, bitcoin client wala et moi je me dis ce c'est pas une bonne nouvelle parce que <laughs> au final le bitcoin c'était venu pour remplacer ce système là or le système là est en train de de se l'approprier quoi. voilà effectivement c'est pas une bonne nouvelle pour le BTC. Moi, mm. je fekkente ni moi li nga jot expliquer moy genèse bi base pour comprendre c'était quoi la philosophie du bitcoin la philosophie tax bitcoin tay gars xalat ko décider ko mettre en place tay su fekkee am nga notion si historique bi rek euh, philosophie bitcoin automatiquement da ngay c'est pas une bonne nouvelle pour le BTC parce que pas de manière voilà carrément gars yi ñoom contrôler mais dinañ si am ben les bo le bitcoin dafa bëgg détaché avec ak nom mooy comme comme ni ngay wax ni contrat infini sur les sur les ETF. et tout ça ces trucs yoo xamante ni voilà ça ça ça ça concorde pas avec philosophie Bitcoin donc man su côté bobu la donne gën a gën quoi mais leer na nañ bro leer na nañ si li nga wax deug la mais merci c'est question bi merci c'est intervention bi on donne la parole à Malé après à Omar ñu ngi lay nuyu Malé. yeah alaykoum grand maaleykum salam naka mu nice. waaw sant yàlla bu baax. mais avec yi day des fois dafay gëj am quoi je sais pas man maa absenté wala nu mu demee noonu. non parfois notif yi ñoo dul jàll mais bon là ça fait 10 jours amul woon quand même. xam nga ok mais bon ok d' accord je comprends donc bon man nag xam-xam maa ngi soog a ñëw quoi je sais vraiment pas la mooy thème bi tey bon pour l' instant maa ngi déglu ba si kanam yeah. non thème bi c' est c' est un débat ouvert si képp ku am question wala képp ku am lu mu bëgg a wax si bitcoin pour jàngal ko nit yi. le micro est ouvert quoi. ok bon man am naa benn question xam ne temps mu ngi ñëw à l' esprit bon maa ngi jéem essayer di jéem a trouver ay raisons réponses YouTube mais ba léegi c' est pas clair pour moi quoi. sax dama gis concept du NFT. je sais pas vraiment c'est ah. quoi ban relation la am ak bitcoin affaire yooyu noonu quoi. je sais pas si toi tu t'y connais un peu wala kenn ci gars yi rek. c'est <laughs> NFT non fungible token. Um, Mm-hmm. nan vais la ce expliquer Sou vous da nga bitcoin hmm, un bitcoin mën nga ko mélanger avec bitcoin ça te fait deux bitcoin hmm, on est d'accord parce que c'est un token qui est fongible Manam, day mélanger wu te mélange boobu nous moo aujourd'hui il y a 18 millions de bitcoins parce que da nga additionné. parce que vous avons ñoo bokk caractéristiques alors que non fungible token comme le nom l'indique c'est bien un token la boo xam ne mënul mélanger avec mon de dafa am caractéristiques qui sont propres te loolu y a koy gën a gis si blockchain Ethereum Ethereum de am ay standard vous vous voulez créer une crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum vous ngay suivre un standard bu ñuy ERC e tu vois donc crypto-monnaie yi ngay gis nii ce sont des ERC 20 Ethereum dafa am un standard. Fatana numéro bi je pense c'est ERC 721 quelque chose comme ça Lolo, que que utiliser pour créer yow ben token da ngay créer un élément unique pour xam sur la blockchain Ethereum mënul mélanger avec pas donc mën nga ñëw nga créer sa monnaie euh, cryptomonnaie bu tudd malé. donc générer si un million de malé. tu vois mais imaginons nga bëgg créer créer euh, si blockchain Ethereum nga bëgg créer ben dessin par exemple wala nga bëgg fa garder benn titre foncier nga xam ni c'est unique parce que loolu lépp c'est possible ba da ngay def de telle sorte que da ngay utiliser standard boobu ne ma wax et que titre foncier boobu wala dessin bii nii wala œuvre artistique bii nii wala son bii c'est unique et que képp ku dem ci blockchain Ethereum bi soo koy rechercher doo trouver beneen semblable alors que quand tu cherches un Ethereum tu vas trouver des millions d'Ethereum sur le marché le lu NFT du di buzz instant bi bini parce que artistes yi dañ ci on va dire un nouveau moyen pour se faire de l'argent parce qu'au final, au final ñëpp ñuy graphiste wala designer wala dessinateur et cetera ñoom avant là lañ la moo doon xew par exemple euh, bon c'est pas pour <laughs> c'est pas pour l'indexer mais soo leen xoolee aatu bini, nii nekk ci kii bi audience bi dafa def photo profil ben waayu One Piece tu vois mais mon, photo Bini, c'est une copie de l'original tu vois le mbogo. peut-être que tu trouver sur internet etc. mais qu'est-ce qui prouve que Bini est original Et ça, Bini, peut-être que est le premier Bini que gars créé alors que si c'était sur la blockchain Ethereum et que Art aussi pour moom moment créé une image Bini sur la blockchain Ethereum il aurait eu la preuve pour xam ni ku nekk di nga c'est blockchain explorer que Bini est original donc Art ici, dañoo gis concept bii nii ñu ne maintenant ñun on va générer des œuvres sur ces blockchains là parce que du Ethereum que moom moo koy def et ay donc ay œuvres yoo xam ce sont des NFT yoo xam ce sont uniques Et bu ñu ko générer ba nga xam ñun on détient la preuve de l'authenticité de cette œuvre là de l'unicité de cette œuvre là si la ñuy à di ko jaay de telle sorte que day mel œuvre d'art instant bii nii sooy wax ay affaire de tableau tu vas parler de la Joconde bi nekk Louvre la Joconde bien la original après amener une copie mais original bi ben la lol motax mu cher ça vaut des dizaines de millions de dollars mais aussi soo créer sa ben NFT gars yi apprécier ko gars yi mën nañ dem nga def ko aux enchères qui ko gën bëgg mom moy payer le plus cher mu jënd ko su ko jëndee day dem ci adresse am Ethereum wala benen blockchain mom dina am preuve que ni mom mom bini bii même su fekkee ñeneen ñi dañ ko copier def ko photo profil wala def ko feneen donc NFT yi globalement l'ol la quoi xawma ça répond à ta question. Ouais, je comprends. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, quoi. les man, j'ai un problème, euh, peut-être pour l'air, pour tout et pour man. Supposons ben artiste, def ben album, def ko qu'un NFT. Donc, du coup, dafay, euh, quand je peux dire, donc, euh, genre, parce que fallait que avait gagné ben album, ben pauvre, moi, nek, genre, authentique, moi, nek original, bi, quoi léegi man suma démé demee euh, bëgg jënd album bu au complet donc man suma ko jëndé genre euh, man maa xëy album bi quoi mais genre euh, les autres comment suñu bëgg album genre comment ils vont faire est-ce que da fay défar album yu bëri bëri bëri donc de telle sorte que ku nekk mën ci jënd yëpp nekk NFT wala faire une autre. je sais pas si tu comprends bien ma question. si si je comprends day mel ni nga jël ben magazine par exemple si monde bitcoin amna ben magazine bu tuddu Citadel 21. Citadel 21 ñom, ne génère que 2000 exemplaires par numéro. Donc, c'est un numéro par mois. Légui, si 2000 exemplaires yoy uniques, mën nañ wax ni exemplaire bu nek, il est unique parce que ñom, dañ def un numéro. mais si tu regardes bien comment ça se passe sur le marché de l'art wala y a un cher le premier bi. tu vois après un prix bi dina offert au fur et à mesure ñu dem si numéro yi si l'artiste la décidé de créer son album en tant que NFT faire créer un nombre on va dire limité de album boobu non. bu si nekk nag dafay nekk unique de telle sorte que yow Maale soo jëndee benn exemplaire album bi da nga yor sa on va dire copie unique de ce album boobu non. instant bii nii par exemple ni ku dem jënd ben CD physique dina xool QR code bi wala mu xol code barbe yoy mais du xam mom bosam moom mooy xam nga moom mooy ban numéro wala mom moy ban ordre si bi leen di imprimer ak tu vois alors que NFT ça te permet ni qu'on d'où jeu de man détenir la première copie voilà détenir la copie numéro telle qui correspond à mon année de naissance voilà la copie numéro telle qui correspond à ma date de, naissance naissance wala genre affaire mes non donc c'est de la pure spéculation hein, au final c'est juste pour permettre aux gens xam nga instant bi nit donc dañuy wut authenticité donc NFT bi man gëmuma affaire yi mais dama lay expliquer parce que suis là quand même euh, c'est plus une vague sur l'authenticité comment faire de telle sorte que se se su bien benn affaire il en est fier mon ne c'est authentique tu vois donc lol quoi après mis la plupart du temps mode là, NFT il fi gën célèbre ça a commencé par les CryptoPunks après il y a un Bored App mais yo, yëpp c'est des modes de telle sorte que da nga koy dégg ki la y a jënd gens après day ñëw ne waaw man am tu vois donc c'est c'est une lubie de borom Khalis, quoi Ok, je comprends, je comprends. Bah, merci beaucoup, hein, Yayof. beaucoup, bokk pour Omar ngi de je sais pas si am question contribution comme d'habitude hein, lever la main c'est ouvert à tout le monde il hein. y a pas besoin d'être d'être timide fii Metaverse. genre Rasoul, ñu ngi lay nuyu après ñu joxaat la parole à Malick parce que j'ai l'impression que dafa bëggoon wax. delloo siyaar. waaw ñu ngi lay dégg. waaw waaw si si ñu ngi lay dégg. waay maa ngi di siyaar de. na solo lol. Hmm. en fait euh, nous avons une question en fait. Euh, actuellement on parle bon parce que quand on parle souvent de Bitcoin bon, par extension aussi il y a les autres il y a les autres par exemple le token. Demandons laaj par exemple au niveau de la blockchain par exemple pour pouvoir euh, avoir par exemple au lieu de avoir un serveur bo xamné serveur central lay parce que théoriquement loolu la am un serveur décentralisé bo xam do xam bon carrément fu mu c'est-à-dire que supposons on sur un site web ma bëgg euh, ma bëgg déployer par exemple c'est un serveur actuellement si blockchain comment ça fonctionne je ne sais pas si nek ken am am xam-xam mu ne ma si tuuti quoi. non mën nga répéter sa question soo bëggee déployer benn serveur central si benn. non non non je disais pas de serveur central je parlais par exemple d'un serveur. supposons que j'ai une application ou bien une application je voudrais utiliser par exemple une base de données décentralisée. ah. actuellement il y a quoi sur le marché par exemple. ah ok je comprends ta question instant concept boobu ki ko gën démocratiser c'est encore une fois Ethereum et on les appelle les DAP. donc Decentralized Application alors. Ethereum ñoom dañoo am propre client bu tudd Guess boobu mais c'était en entreprise donc après am tamit environnement pour développer le donc si bien da nga outils yu Truffle vous euh, un Ganache donc de la même manière que yow instant application nga déployer ko utiliser JS outil Linux comme Nginx wala blockchain yi ni entre guillemets tamit il te met en place un environnement de développement donc su fekkee yow lii c'est un truc vers lequel tu vas aller je te conseille même ceux qui me conseillent très souvent Ethereum nga dem si Ethereum parce que ñoom une documentation. complète ah, en fait moom la. <laughs> voilà. <laughs> parce que bon va évité quoi. <laughs> on sait tous que seen transaction yi mooy loolu quoi. ah euh. ah ah ouais ah ouais. oui oui mais en fait am ma gisoon en fait j'avais vu le graphe là je ne sais pas mettre gis nga ko Nourou. graphe protocole. the graphe oui. ouais. j'avais vu mais voilà je vois que plus ou moins c'est ñoom si loolu quoi mais bon donc j'ai pas j'ai pas beaucoup creusé mais bon, je sais pas. Grave. Euh, oui. c'est une force, c'est plus, ils sont capables de requêter la majeure partie des blockchains pour sortir des informations dessus. Tu vois. Après, ça dépend aussi du type d'application que tu veux créer, tu vois. Moi, franchement, comme, comme je dis très souvent, déjà, pour suivre aussi Bitcoin, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a une crypto-monnaie, bon, moi, je pourrais pas vraiment t'aider là-dessus. Oui, bien sûr. Non, je comprends, je comprends. Hmm. C'est vrai que par exemple, c'est tout le contraire. je je suis pas trop Bitcoin, quoi, sérieusement. souvent, j'explore plutôt les autres, les autres, les autres tokens, les autres crypto-monnaies. Hmm. E, voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas interdit dans, dans, dans, cette room? <laughs> mais bon, après, non, mais c'était ça, quoi. C'était ça. Donc, il y a le conseil, moi, Ethereum, n'est-ce pas? Ethereum. Non, pour le moment, quand il s'agit de DAP, ils ont la documentation la plus complète ils ont les mhm. outils les plus performants. Maintenant wax nga ko problème frais pour nous donner 100$, dollars peut que tu vas être obligé de payer 80 ou 90$. dollars ça mhm. dépend si as un réseau de fonds. toll tu vois. donc l'olu dina affecter qui nga fait créer une application sur Ethereum parce qu'au final di de yi di fàtte mooy créer benn dapp mhm. peu importe requête yi fa nit il y a où tu vas payer lu ñu de gué gaz quoi. bien sûr donc ce fait que wu Ethereum de yokk plus wu GUE donc au final tu vas perdre beaucoup d'argent. Ouais, ouais, ok. D'accord. En fait, en fin de compte, tu dis que ça n'aura pas beaucoup de sens parce que. Ok, je vois, je vois. D'accord, non, l'air, non. non. un problème. avec, problème. Avec, avec cette update Binardef, est-ce que tu penses que transaction et prix transaction vont être tu là Moi, c'est un Dañuy dem ci proof of stake bi. Ouais, c'est un stake Hmm. en fait proof of stake c'est quoi c'est que dafay am ay nœud yu bari ñom ñoo Ethereum et on hmm. part du principe que puisque ñom ñom ñoo gëna sur riche réseau ils ont intérêt à ce que réseau bi dox hmm. n'est-ce pas mais su fekkee on va appeler ça un cartel hein, parce que cartel la gars yi ñoom ñëpp suñu formé woo ñu def nœud ça veut dire qu'ils sont capables de décider maintenant de régler, yi ñuy établir réseau euh, Ethereum donc, ils mhm. sont capables de dire, adresse INI, par exemple, on va bloquer leur transaction. Ils sont capables de dire parce que nous avons frais par rapport à ces infrastructures pour dérouler à une gueule. Nous avons de façon unilatérale, nous avons frais. Mhm. Donc, en fait, le système banque est le rek. Hein. wow wow. Tu vois. Donc, euh, Ethereum, à part à faire de DAP juste pour tester et tout, bon, quand même, si tu regardes bien, mhm. les DAP, il n'y a pas vraiment de use case hein amul ben cas bo xam nit créer na ben dab hamni, ça ça régler le problème des gens premier dab bi que bi bi euh, à l'époque mais CryptoCat si mais chat ou noonu nga <laughs> bon bref après langa nga ICO après ICO yi ICO en 2018 c'est mort après là lañ créé comme concept de baisse, NFT tu vois donc il euh, n'y a pas vraiment de cas d'usage man je vois pas pour le moment. Bon, peut-être il y a aussi le DeFi. Bon, qu'on, qu'on... DeFi Ah, c'est, ah, <laughs> c'est un autre débat. Mm. C'est un autre débat. DeFi bi amul benn use case grand. Ouais, ouais, effectivement, j'y pense. C'est vrai, hein. Mais, mais, mais nous ma doon que moi euh, yow langue de fogue, nga jàppoon ne par exemple ay saa nii moom limite parce que tamit, comme bon, comme je le dis à chaque fois je le dis, par exemple, euh, on revient plus ou moins, on tourne, on revient plus ou moins au système central. C'est-à-dire que quand il y a plus de gens, yo ils ont plus de tokens, ils ont la possibilité après de pouvoir, voilà, de pouvoir décider en quelque sorte, quoi. Je ne sais pas, est-ce que, est-ce que nous me non ou pas? Si, si, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche maintenant comme ni avons waxee si si système de nonu le bitcoin jéemoon gédee nit yi crypto créé crypto cryptomonnaie bini maintenant su fekkee nit yi dañ crypto c'est compliqué chaque jour je le répète ici il faut juste se renseigner sur l'histoire de Ethereum ñi créé on sax ñu dugal Ethereum sur le marché nit yi di ko jënd entre nous 70 millions d'Ethereum bien sûr loolu lañu woyé tu vois mm-hmm. donc nous ils sont multimillionnaires L'OLEX, l'ex c'est un indicateur tu vois si qualité au projet Bini. Et tu vois. donc benen beneen indicateur bi moy comme le mot, use case gis nga bitcoin dafa ñew pour résoudre un problème. Mhm. à la base gars yi bi crée créé Ethereum avec Vitalik dañ ni bitcoin dafa yéex trop. genre c'est environ trois à quatre transactions par seconde. xam nga que genre une transaction sur le réseau bitcoin ça peut prendre dix minutes ça peut prendre des heures mais l'ol déjà c'était une performance parce que nous avons dañoo jóge ci ay virement bancaire yu doon jël ay jours mais bon l'homme veut toujours plus légui ñom Vitalik ak ñeneen ni ñun on va créer une crypto-monnaie bi nga tu vas avoir des centaines des milliers de transactions par seconde mais instant bi ni bitcoin dafa ñew am ben couche 2 bu tudd lightning bo xamni potentiel bi c'est 1 million de transactions par seconde donc crypto-monnaie yooyu non, lan offrir loo xam bitcoin offrir c'est ça la question dès lors que tu essaies de creuser cette question là tu te rends compte que 99% des crypto-monnaies à part bitcoin amuñu njëriñ après am na yo yoo amna ne am quand même Il n'y a pas que bitcoin. mais mais mais mais le concept de smart contract non smart contract ça existe déjà depuis bitcoin bitcoin dafa am un langage spécifique bu tudd script amna benen implémentation bu mini-script, mais yow une transaction Bitcoin c'est un smart contract c'est un contrat entre celui qui envoie et celui qui reçoit et qui est supervisé par le réseau tu vois mhm. Bitcoin amna un smart contract Amener un type de transaction li ñuy woyé PSBT genre partially signed Bitcoin transaction yo xamni yow mën nga def Bitcoin ak ay dizaines voire des centaines d'adresses mais ce sont des smart contracts grand encore une fois et ils utilisent des mots buzz Quand on blockchain créé le mot blockchain mhm. nit ñoo expliquer l'innovation qu'avait amené Bitcoin donc quand ils ont voulu expliquer ça ñu c'est cette technologie là des blocs enchaînés ñu ne donc this blockchain technology après si le gars ont commencé blockchain voilà di dem entreprise di mhm. leen comme un rêve bien sûr donc maintenant, quand tu parles de smart contract, on te parle de contrat intelligent, etc. L'autre, ça existe déjà depuis longtemps, tu vois. Ok. C'est juste des concepts buzz, quoi. Quand on par exemple, bon, c'est vrai qu'il y a plein, il y a plein, plein, plein, plein, plein. Ah, mais by the way, euh, le concept, par exemple, des play to earn, là, aussi, ils ont... De quoi Play to earn. Play to earn, how non, mais genre, en fait, c'est-à-dire que ce sont les, les jeux, quoi, les, les jeux qui utilisent en même temps des, des wallets. C'est-à-dire qui permet en même temps, quand tu joues, plus tu joues, plus tu peux gagner des, des coins de après dans le marché. Ah, si, si. Mais Lolo, euh, ça revient encore à la question de Tosmoses tout à l'heure, quand on parlait de metaverse. Lolo, ça existe depuis tellement longtemps. Donc, il y a des jeux vidéo depuis longtemps. Donc, on a gagné des coins bitcoin yoo xam ne mën nga ko yónnee sa benn xarit. yoo xam ne nga ñëw utiliser ko si shop bu jeu bi xam nga. Mhm, mhm, mhm. non mais non en fin de compte c'est vrai hein, parce qu'en fin de compte c'est juste ce concept bu moi. bon avec les wallets et tout ça c'est plutôt lié avec des voilà c'est plutôt bon il y a il y a il y a derrière par exemple des des des tokens bien des cryptos en quelque sorte mais bon c'est vrai que en réalité c'est pas c'est pas si extra que ça en tout cas oui bon D'accord, d'accord, Et accord dégg naa la nga wax yow dans da les autres coins moy non pas tous les autres coins mais environ 99% des autres coins pour man eh, xoolal tey rek la ligne, il y' a des gens qui ont créé des euh, crypto-monnaie bu qui concerne la série la Squid Squid Game. yeah yeah bon ce sont les mêmes les mêmes coins là. Uh-huh. bah grand la, <laughs> la majorité des crypto-monnaies, ce sont des mêmes coins, au même titre que Dogecoin, au même titre que Shiba, au même titre que tout le reste, quoi. Ah, mais, mais, attention, il y a d'autres qui ont, qui ont leurs utilités. Ouais, mon temps, 99%, mais bon, lolo, benen débat, on peut en parler. en tout cas, je comprends, bon, merci en tout cas pour l'air, quoi. parce que par exemple, j'ai, par exemple les, les, les coins là qui ont lié les IoT plus les coins, c'est-à-dire qu'il y a un qui s'appelle Liam même possibilité de de pouvoir faire le minage Bon, par exemple nous lu ñuy def en fait dañuy def besoin d'un système boo xam yow si tu as le modem par exemple tu tu peux miner en même temps tu peux miner par exemple leur propre coin mais aussi ça que euh, matériel boobu ñu en même temps ça permet aussi de de de de faire des objets connectés c'est-à-dire que ça permet de d'établir des des connexions entre les objets. C'est un ngi commencé cest dire que en quelque sorte ñom def tu peux miner par exemple directement il se base par exemple sur concept de proof coverage je ne sais pas pas bon grand bon pour ne pas xaar bon du crypto yeneen monnaie je veux pas non plus aussi ñu perdre si débattre si gars yooyu noonu quoi. ah non non maa ngi jégalu non dama dama dama jàppoon vu que débat bu weer moo tax ma doon andi débat changé mais bon maa ngi en tout cas su nekkee tu penses que leen wax pour yeneen yi mais ok on laisse les autres parler donc maa ngi jégalu bu weer dégg non amul benn problème. <laughs> grand Omar ñu ngi lay nuyu.